di gunal day garam di way ak sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak liggéey ko may soxna jaara dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu zambaañu le jaara am nga tawfeex ku gën fa bal tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax gi fi bu sa baale manoon ci kër man ci jaamoom fu mu jaar ni ñayi mu roy jaara gëm na yàlla ak yónneen ba xam Seyxi Bamba xam na boppam far mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër ya daana jàng ak soxna jaara xam-xamam wér na alxuraan xam na jaara am ca daan bind la woon cay jaara barke Cheikhul Khadim waaw bisimilah salaamaaleykum kon ñu waxtaan ci mbir màggal soxna jaar gi rek xanaa li ci doole sant yàlla de ak yonent bi Sëriñ Tuubaa ak soxna jaar rek ci am yéeg-yéeg boo xam ne maanaam murid yëpp ci liñ ko muy bis boo xam ne bisu mbégte la ci bisu murid yëpp di doon jigéen joo xam ne juman jigéen joo xam ne liggéeyal na yàlla loo xam ne képp képp ku dox ak ku yeewoo xam nga ci dara bég ci lool nag di ci sant lool di sant Serigne a baax a baax di sant Soxna Jaaratu Laahi Mariama Bousso waaw bii daayira daayira soppe Serigne Fall sant central Kaolack moo sos daayira bi di def ay xeeti bernde ngir màggalu soxna jaare gi yàgg nag ci commencé nañ ko commencé woon nag ci màggalu sëriñ Fallou gi sax màggalu Serigne Fallou gi dañ daan def ay suñu xeeti bernde fii takki ko fi yóbbu ko Touba biñ eggee ci jamono sëriñ Bara biñ demee Serigne Bara yóbbu ko xewet yi bay bay dem mu ne kaay leen ma ñëw mu ne leen dama bëgg ngeen seet mbooloo mi kii jooju ñu naan Assane Gueye Assane Gueye Assane Gueye Assane Gueye toog suñu baar na ko waaye Assane jógal waaye mbooloo mi Assane jógal waaye mbooloo fal waaye yéen li seen problème yéen seen bundi sëñ Fallu soxna mooy mu sëñ Fallu laa leen boole muy def sax màggal bu ñuy dem ñu takk suñuy biis yi ak suñuy xar ak suñuy màggal suñuy béy yëpp yóbbu sëñ Fallu waaw jamo jamono nag ñu daal di xëy benn màggal bu ko Poroxaan gi ñëw rek moom Assane Diourin daal ne ma sa waay damaa bëggoon ñu takk ndox ma koy ndox di ko jox toog di ko jox nii ci tali mu ne man dama koy def bu nga ma ko defee ma ne ko man loolu du ma ànd ma ah, kon baax na ma ànd ak ma def ko ren déwén ma fekk si ko ñu commencé takk ci ay mbuusi ndox di wut galaas yi xóoyal di takk mbuus di joxe léeg-léeg ñu takk joxe léeg-léeg ñu jox ko nit mu mere ñu léeg ñu jox ko nit mu jël ko di ci liggéey nag wax dëgg muy liggéey boo xam ne dafa kawe ndax saa boo ko defee ren bu déwénee nga yokk ndax dañ ne tànn si euh, liggéey bi liggéey bu baax amul tànki gannaaw tànki kanam la am biñ ko commencé di takki ndox ba ak ñu bàyyi takki ndox di jënd ay sachet di ko joxe ba ak ñu ne daal takki ndox ak joxe sachet yaakaar naa ne adduna sépp nga koy def booba dëkk bépp nga takk ndox di joxe ñëpp nga jëli sa ndox. Assane mën nañ ko soppi mën na ko nuñ koy soppi mën nañ toggee añ jox ko jam yàlla su añ yi jeexee ñu ñibbi mën na ko bisimilah at moomu ñu togguñ benn benn mën na lañ togg joxe ko fi mu jeex ñu yeewu ndo togg yi maanaam mel ne na Poroxaan lay def ndax ñi dem Poroxaan pèlerins yi jóge fii Ndakaaroo Touba ak Louga fii lañ jaar ñu ay xéewal ñu xéewlu dem Poroxaan di ko waral loolu moo tax ndax loolu lañ sëñ Muntaxa wax ndax sëñ Muntaxa bi ñu koy may wax ko eh, leeral ko mbir daf nañu loolu ngeen ne man la man la man man Muntaxa la waroon waaye man ngeen fa nekkal kon fu ngeen ne mel ne maa ngi ne ci seen biir kon loolu moo tax ñu gën a sabablu te di ko def mu am ci ndigal nag ndax doomam ji Cheikh Babacar mu kabaro moom la ñaanal guddeeg bëccëg saa suñu liggéey moom la ñu àndal muy suñu jëwriñ ci liggéey bi lu ñuy def it ci moom la ñuy jaar mu dem ci Cheikh Mountakha ndax dañ ne ñun sëñ Tuubaa kii si jëwriñ ci nga yem moom sëñ Babacar lañuy yem sëñ Babacar yem sëñ Mountakha lu mu ci jële moom moom moo koy jële ñun la sëñ Babacar yi rek la ñuy gis ci loolu lañ wéeru ñun di ko nal day garam di way yàgga sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigal nga àddina wóor na haa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara